voilà les internautes président Ousmane Sonko ngi nii gannaaw ba mu seet woon ñi nga xam ne ñoom lañ jot a jàpp instant yi président Ousmane Sonko mu ngi delluwaat il est vingt et une heures cinq minutes ñu war a delluwaat euh, këram di cité kër góor gi ba mu seet e ñenn ci nga xam ne ñoom lañ tegoon loxo moom ak Barthélémy Diaz voilà mbokk yi yéen a ngi seen loolu le président de la commune fii ci police centrale seet yi ñu jàpp ak voilà président Ousmane Sonko ngi noonu di dem ginnaaw bu mu jugee commissariat central de Dakar voilà